projet euh, projet riposte dafa doon projet boo xam ne ci biir AGRGMV lañ ko lañ ko lañ koy defaree euh, foofu lañ koy doxalee euh, ci ndimbalu FAO ak financement Union européenne projet boo xa boo xam ne dafa am solo parce que day dundalaat suuf si bu dundalaate suuf si mën ci ñu mën ci bay ñu mën ci bay loo xam ne amal askan bi njëriñ ndaxte tey boo xoolee changement climatique dafa am impact impact boo xam ne dafa yàq lu bëri. dafa yàq lu bëri ndax say foo munoon bay euh, nga am fa li ngay dundalee say njaboot dootoo ko mën a am te boo bu fekkee ne mënatoo am li ngay dundalee sa njaboot ci àll bi da ngay tuxu ci euh, ci ci dëkk yu mag yi dem di uuti liggéey donc boo demee foofu nag donc day gën day gën a cher parce que ñuy laajte courant dañuy bëri ñuy laajte ndox dañuy bëri loyer bi day gën a cher et cetera et donc ñu si bëri tamit bu ñu mënul am liggéey ci euh, ci ci dëkk yu mag yi dañuy jël gaal dem dem dem bitim réew te loolu jafe-jafe yooyu xam ngeen ko projet RIPES boobu nag day dundalaat suuf si dundalaatee suuf si nit yi mun a dellu ci euh, ci foofu euh, mun a mun a bay mun a mun a am lu ñuy lu ñuy dundalee seen njaboot ñu amee lu ñuy dundalee seen njaboot moo tax ñuy am euh, économie boo xam ne ku nekk di nga mën a yor euh, sa bopp donc projet boobu am na solo nekkul projet euh, jëmbatu garab kese dafa doon projet boo xam ne euh, dina dundalaat dund dund dundalaat suñuy koom-koom tamit donc maa ngi jaajëfal Union européenne ci ci ndimbal bi di wax tamit amoon nañu ay jafe mais jafe-jafe ñu bëri c'est jafe-jafe ci lenteur administrative maanaam dossier yi day yéex day day yéex fu fu ñu fu nar def weer dafa ñetti weer donc loolu tamit ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax lu si des nag di jaajëfal tamit équipe euh, FAO ndaxte seen xam-xam la ñuy ñëw indi di ñu jàppale seen assistant technique ñëw du ñuy jàppale tamit di ñu encadrer euh, ñun tamit euh, ñu woo ministère ministère yi bëri bi nga xam ne euh, seen liggéey tamit euh, ak seen xam-xam mucc na ci ci ci wàll bu ñu leen dénk ñu boole leen ñoom ñëpp ndaxte euh, al AGRGMV ñun gëm nañu nekk que ñun suñu xam-xam am na fu mu yem suñu doolee am na fu mu yem suñu kàttam am na fu mu yem loolu moo tax ñu ñu ñu sakku ndimbal ñëpp. waaye nag bu ñuy sakku ndimbal ñëpp pour ma mën a dox dangay ngay boole nit yi depuis le début donc du da ngay xaar ba nga am financement wala nga xaar ba projet bi pare nga nekk ñëw leen bokk déedéet ci xalaat bi si boppam la ñu boole ñëpp balaa sax ñuy am financement dañ leen boole ñëpp ñu maturer projet bi ñu tënk projet bi ba pare doog dem uti euh, uti financement ite financement tamit bu mu ñëwee tamit dañuy boole ñëpp ñu boole ñëpp ku nekk nga nga am li ngay def ci biir projet bi nga mën ci bokk population bi tamit euh, collectivité territoriale yi mooy maire yi fu ñu nekk ak population bi euh, ñu nekk ci àll bi ñoom tamit am nañu seen xalaat ci projet bi donc parce que ñoom man dama jàpp nekk nekkuñu bénéficiaire ma jàpp ne ñoom ñoo ko moom donc comme que ñoom ñoo ko moom seen xel seen xalaat seen xam-xam la ñuy utiliser tamit parce que euh, nit mun na bañ a jàng université mais mun na am xam-xam boo xam ne moo raw ku jàng université ci euh, ci ci yenn anam yi donc dañuy capitaliser xam-xam boobu moo tax projet bi boo gisee nuñ ko tënkale loolu la ñuy woowee intelligence collective maanaam boole xam-xam ñëpp ki nga yaakaar ne xam na mun na xam ki nga yaakaar ne xamul mun na xam loo xam ne yow xamoo ko de ce fait que dañuy boolee xam-xam yooyu yëpp boole ko tënk ko ci projet te mu ngi dox normal ñu ngi commencé di gis ay résultats yu baax a baax a baax. boo ma laajee projet bi lan lay lan lay lan lay soppi ci euh, ci euh, ci euh, ci ci dëkk bi dangay xalaat benn xale bu jigéen boo xam ne fukki ak at Euh, boo demee Grande Muraille Verte bo am na ñu bëri ñu ne nag waroo ma ko wax mais euh, réalité tamit euh, dañ koy wax léeg-léeg day am xale boobu yaakaar naa ne que balaa ñuy dajee déwén day fekk am na jëkkër am na doom donc balaa muy am 18 ans day fekk am na ñett doom ñeent doom wara boot doomam. ëmb 6 mois dem di jël buum di di di di root ndox boo xam ne benn teen boo xam ne 100 mètres la loolu du dafa dafa lu doy waar la ba pare war a dem ci àll bi dem uti ay mat pour euh, dem togg añ kooku boo ko waxee bul dagg garab bi parce que damay capturer carbone wala damay restaurer écosystème du la comprendre parce que lu muy comprendre mooy dundal njabootam moo tax ñun ñu war ko def jàppale ko pour mu mën a dundal njabootam boo ko defee a euh, aar doomam dundal leen bu baax tamit mun leen yóbbu école bu leen yóbbee école fii ba fukki at ak juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent doom yi dinañ dem université dinañ am seen xel bopp mën a liggéeyal seen bopp mun a mën a développer seen propre entreprise wala wala wala liggéey donc sop sop soppi seen dund ak seen seen i dund waajur loolu dafa am solo Euh, beneen anam bi tamit day contribuer si résilience alimentaire maanaam euh, nit ki mun a dundalaat boppam donc douze mois sur douze fi nga xam ne euh, du du du du wekku ci kenn donc loolu am na solo beneen anam bi tamit day tax ba moom tamit mu am ay activités yoo xam ne day day tax ba mu am xaalis am am xaalis tabaxal boppam wala jëndal boppam loo xam ne ci ci ci keneen la doon weeru donc loolu day tax ba communauté yu ñu yu lu ñuy woowee vulnérable day tax bu ñu génn ci tolof tolof yu ñu nekk mën a yor seen seen seen seen dund